Ama la la xaru tabaski waaw xaru bi la jar jarul ngeen daw ba dee foo leen mën kawar leen indil karaw muy sama soxla dafa sama poos ana mu na mi ngi ni sama poos dafa nag dafa ndànk judd ngeen ba toll ngeen am xaru bu mel ah. ma sacrifié jox leen ngeen bëgg maa trian waaw yow mi oui moom ma ne di nga di nga génn xaalis bi de xaalis bi di nga ko génn laa la wax ah, dama lay rey dama lay rey day indi pour ay sebo pour. pour tabaski bi tabaski bi waaw. waaw. eh waaw waaw après. Eh, neen sa papa maa ngi ñëw dégg nga ngi ñëw moom nii rek lay def moom moom moom doo xamul sax heure yi mu ni ci kër gi ñuy wax. yow nga dëgg noppi. moo càngaay ma yuuxule na ngeen ma bàyyi ak doomam ma violé. maa ko ba bu ngeen di wax may xotti sama yére yi nekk. maa yu néew ñu xool ñu yu ko booy xotti ñu xotti. boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, eh boleh, boleh, ci boleh, gën boleh, boleh, nga tut tas ya, boleh, boleh, tut boleh, boleh, boleh muy. tas boleh, ya, ya, waaw.